li mu mal si ay programme yoo xamante ne mu ngi ci ay yeneen yoo xamante ne Aliou Affe mu ngi ci li nga xamante mooy projet wu ay albumam yëpp dañ ci waxtaan incha bi naa fii si jàmm ji info lay xewee jërë ngeen jëf maa ngi lay nuyu Aliou Affe aousubillah bismillah inna waliyallahu jërëjëfati Serigne Touba ki jar am maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaal Mouridina gàcce ngalaama Serigne Affiye Mbacke Fallilou jokko jël Cheikh Amadou Lamine Bara Mbacke Affiye est-ce que Serigne Touba maa ngi ziyaare bu baax mbokku taalibe yëpp di ñaanal seriñ Mountakha Mbacké sunu borom yàggal ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ñaanal bu baax sëñ Cheikh Jëmm Fall yàlla yàggal ko fi mu yàgg fi lool ak njabootu Serigne Touba bi ak njabootu maam Cheikh Ibra Geex mbokku taalibe di ñaanal xalifa généraux yi ne ci dëkk bi yëpp sunu borom defal leen tawfeex defal leen saxaadatu daarayni di ñaanal bu baax euh, Cheikh Abdoulaye Diop Xaas sama Serigne sama mag sama xarit sunu borom wéral ko te. jàmmal ko kàttanal ko barke maam Cheikh Ibra di ñaanal sama papa Cheikh Mansour kase moom Serigne ma sàmma sunu borom yàggal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey nuyu waa jàmm ji TV di leen wax waaw afiya rek jàmm rek. Mm-hmm. waaw ma ngoog. Mm-hmm. jërëjëf nuyoo bi am na solo di booba ak dañuy xool nag xawoon nag dégg tuuti rek mm-hmm. suñu diggante ak yow parce que boo xoolee kan ni danga nga nekkoon jamono ji passé ci li nga xamante ne ni sa waajur góor dafa ko jaale tamit kon yàlla na ko yàlla koo xamante ne ku sësoon nekkoon ci yow tey si sa diggante ak sa waajur boobu waaw sama diggante ak sama waajur nag defe naa ni Sénégal ñëpp sa teg nañ ci seen bët ndax sama wayjur boobu dama koy ñaanal suñu borom xaare ko ca àjjana yu kawe ya ak képp ku mu fekk ci biir suuf rek ak képp ku ko fa fekk yàlla teeru lañ ca àjjana yu kawe ya barke Sëñ Tuubaa ndax sama papa dafa nekkoon sama xarit lool ba nga xam ni euh, damay wax suñu waa kër sax dañ doon naan euh, dafa ragal Aliou ndax tellement que ni ñu xaritoo woon ba lu ma bëgg rek bëgg na ko lu ma wax it loolu la wax waaye alhamdulilah ba nga xam ne lu ma mosaan a bëgg rek day méngoox lu neex yàlla waaw lu ma mosaan a wax it day méngoox lu neex yàlla ba tax mu daan ci ànd ak man donc um, duma def nag manqué na ma nag lool parce que dafa nekkoon sama sama sama poids te poids moom bu tegee ko ci yow rek waaw nga xam ne am na lu tegee ko ci yow kon nag maa ngi koy ñaanal sunu borom xare ko ci àjjana yu kawe di ñaanal sama yaay mi nga xam ne moom la ñu yàlla bàyyil fii sunu borom bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam kanam mu yàgg ñoo gunge. jërëjëf tey ñu fekk la fi sa fi nga xamante mooy sa bérébu liggéeyukaay nekkul ne si kese mooy sa liggéey da ngay yëngu ci yeneen activités yoo xamante ni loolu sikar ci waaw damay yëngu ci yeneen activités yu dul sikar parce que fii ngeen ma fekk nii donc sama bërëbu liggéeyukaay la ma ànd ci ak Cheikh Abdoulaye Diop borom xaas moo xoolee bourse bi euh, centre médico borom xaas la waa centre médico borom xaas bi nga xam ne fii lañ nekk di fi liggéey euh, topp nag ci ginnaaw sëriñ bi mu nuy won te dinu jàngal dinu womat ngir ñu mën a xam nu ñuy dimbale doomi aadama yi ndax ku xam sëñ Ablaye Diop xam ko ci traditionnel ak social muy faj doomi aadama yi di leen dimbali di leen taxaw di def nag te yàlla dong tax di def te yàlla rek a tax ndax fii ku dugg ci kër gi gis ni kër gi mel xam ni euh, social a ngi fi te te te lu wér a ngi fi kon nag donc ñu ngi ñu weex beneen liggéey bu dul ci sikar si rek mhm. te donc tey bi ngeen ñëwee gis ngeen gis ngeen firnde gi tey bu ñu jógee ci li nga xamante mooy mbirum sikar si ba léegi foofu la ñuy delluwaat rek mooy instant ni yaa ngeen dëgmal ay programme yoo xam ne am ci décembre bi wala fii ba mois de janvier mais ñu gis boobu ak léegi suñu kaaw corona bi ñu ngi gën di yokku mhm. loolu tamit baal amul benn tiitaange gi mu def ci yéen yi nga xamante ne waaw donc euh, duñ ko tuddee tiitange donc dañuy jàpp ni rek euh, li fi xewoon moom ndogalu suñu borom la parce que comme ñun ay Baay Faal lañ liñ tiital yombul moo tax bëgguñu tuddee leen tiitange <laughs> waaw donc euh, dañuy jàpp ni rek toujours li fi xewoon rek mooy bëgg a ñëwaat wala boog la ñuy signalé waat te ñaanuñu yàlla mu agsi waaw metti na nag ci ñun parce que ñu tëj say programme cinq mois yënguwoo mm. waaw metti na te ñi ko ñi ko tëj joxuñu la añ joxuñu la reer du ndekki du dépense du dara voilà donc nag boo buñ ko tëjee foofu nga yëg ko waaye heureusement ba nga xamee ni ñun yoruñu woon benn liggéey waaw ndax bu ñu neewul ci lii ña nga ca beneen ba voilà donc nag loolu rek la ñuy sante yàlla suñu borom euh, beneen bi nag mooy dañuy dañuy jouer rek ba keroog ñuy mën a dégg ni arrêté nañ manifestation yi mm. waaw parce que ñu ngi préparé aussi le 12 samedi bii di ñëw mm-hmm. war nañ dem Pikine Marsabanel oh, muy cantu jumeau Afia suñu jugee foofu donc tamit mhm. ñu ngi préparer waat le 19 mhm. muy sargal Aliou Afia bi nga xam ne war na am jëppal euh, bu ñu jugee foofu tamit ñu ngi préparé muy le 28 décembre euh, ca Casamance mhm. muy soppe Aliou Afia yi waajal 28 décembre foofu ca Adéane donc ak yeneen événement yi nga xam ne daal ma nga ca kanam donc yooyu yëpp dañuy dañuy dem rek